jërë ngeen jëf mbokk yi ba tey comme niñ leen ko waxee rek ñu ngi fii ci Touba Koul ci bis bi nga xamante ni comme niñ leen ko waxee rek mboolem tey jii mën nañu ñi ëpp ci murit yi waaye rawatina ñi nga xamante ni ñooy dund xasida ñu ngi fii tey ci bis bi ngir fas yéene ko ànd ak murit yi nga xamante ni ñoo nekk fii ci Touba ñoo ngi kenn koo xamante ni nag mën nañ ne kenn la ci mbooloo mi nga xamante ni mooy mbooloo mi amal fii bi sub xasida bi muy Serigne Mouhamed Fall macha allah mu fere ci li nga xamante ni mooy njàngum alxuraan ak xasida yi macha allah sëñ Mouhamed foofu rek lañ lay dekkee suñ micro mu mel ni bis bi tey ku fi ñëw rek sa xol sedd na bu baax a baax a baax ci taxawaay bi nga xamante ni ak lu xasida taxaw nañ ko murit yi nga xamante ni ñoo nekk fii ci Touba Koul loolu lan jàngat ngeen ci waaye laataa jàngat rek mu mel ni njàng mi dañoo seetlu ne njàngum durus meek alxuraan mi dox na bu baax a baax a baax loolu nax ngeen ko waajalee ba tey ji ku fi ñëw rek mën a rafetlu bu baax a baax a baax liggéeyu commission culture bu baax a baax. Euh, asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu euh, mbokki taalibe yi ñu ngi leen di ziyaare bu baax a baax a baax tey ñaanal Serigne Mountakha mu yàgg fi lool te wér di ñaanal Serigne Hamsatou Mbacké Euh, asadul xaddim sunu borom guddal fanam te wéral ko euh, sëñ Modou ñu ngi lay ziar bu baax te di la dalal di rafetlu bu baax liggéey bu am solo bi nga xamante ni ñi ngi koy ñi ngi koy ñëpp a ngi koy bàyyi xel ci Touba Vision mu mel ni euh, laaj boobu nga laaj ci wàllu liggéeyu alquran ak xasida yi taxawaay bi nga xamante ni Serigne Hamzatu Mbacke moom Serigne Chouaïbou dina ko euh, ni euh, mu nekk dañ ciy a am lu kawe njortu ginnaaw bu nu yeesalee ndigal li ci moom lëm nuy digal dina ko bàyyiloo xel mooy bisub xasida lan woote loo xam ne moom la ñuy ubbee moom la ñuy tëjee ak alquranul karim bi nu jullee fajar itam bi nu sëlmalee lan tàmbali ci nooru daayira ni ubbee ko ak wakaana xaqan ak jaalibatul maraaxi euh, ñi nga xam ne ñoo yor durus bi lu ci mel ni sëñ Abdou Tandi noonu la doon noonu la li nga xam ne mooy limi xasida yi ñu jotoon ndigal itam ci sëriñ bi ay limi jaalibatu yoo xamante ni mi ngi nekkoon 313 euh, jaalibatu ak 313 wakkaan nga xam ne mooy xalifa fii ci dëkk bi te way juróom sëriñ Tuubaa seexaloon ko jox ko ubbil ko fii mu ubbee fi moom it mu joxaanu ci ndigal lu toll noonu ñu matal liggéey bi loolu sëñ Modou kon day mel ni euh, li tax tamit ñu ñu santaat sëriñ bi ci ci ci ci liggéey bu màgg bi danoo seetlu ne saa yu nu defee bisu xasida bi bala moo dellusiwaat dañuy yëg ak yokkute goo xam ni ci suuf si lay tàmbalee mooy ñun xam nga ni danoo nekk ci dëkk boo xam ne dañuy bay waaye at mu nekk lu ñuy tudd ci ci ci ci ci wàllu mbay moomu barab bi moom ñëpp dañ leen ciy ñëwee. te loolu bi ñu tàmbalee door bi sub xasida yi lan tàmbalee gis lu mel noonu yi kon ñun mën nañ sëkk ci ci ci layal xasida yi buñ ko buñ buñ buñ mën na wax layal xasida yi mat nan ko ci zahir ndax kat xasida yi mooy lépp sëriñ bi mooy diggante liggéey bi mu doon liggéey digganteem ak boromam digganteem ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te ñun ñi li ñu war a sant mooy sëriñ bi dafa waxoon ni xasida yi moom moo leen bind waaye ñi leen di jàng dama leen di tànn ko ñun tànneef lan ci sëriñ bi te xam ngeen xam liggéey xasida yi mooy lam doon wax allamani al alimu maalam alami wa qaadalil xabiru sirra al xalami sekkirab xalim ak suñu borom ko moom la ko jox mu bind ci xasida indil nu ko loolee nag biñ ko xamee yëg ko ñu roote ci bisu xasida Touba Ngaye bi nga xam ni ay fan a ngi nii ñu nekk fee ñun sëñ Xaadim Caam fi la dalloo fan yi bii fi la dalloo ba xëy suba nekk ci njàng mi mi ngi ànd ak ñun sëñ Jibi Jaañ noonu loo gis fii ñu di ko doxe yàgg ngaa ñëw bisu xasida Touba Ngaye ni ngay gisee ñu koy doxee fii rek moom la ñuy roote ci bisu xasida euh, Touba Koul moom lay roote ci bisu xasida Touba Ngaye mhm. te it li ko waral mooy danoo jóge fii dem ci Serigne Hamzatu Mbacké juróom-ñett at ci ren mu daan ne nu boole naa leen ak waa Touba Ngaye ab liggéey saa yu nekk saa yu jógee na ngeen jóg saa yu tegee ngeen teg loolu ndigal loolu la ñuy wéyee ci Serigne Hamzatu Mbacké mu Serigne Soxabi Sëñ Modou waaw kay ñu ngi macha allah kaddu yu mujj yi rek waa kaddu yi mujj yi moom ñi ngi ñi ngi ñi ngi santaat sëriñ bi di santaat kilifa diine yi fi nekk yëpp ak kilifa yi nga xam ne mooy kilifay aada yi nekk ci biir dëkk bi di santaat itam waatu Touba Brésil ndax ñoom it taxaw gi nga xam ne ñu ngi koy ànd ni ñu koy ànd fii noonu lañ koy àndaate ñoomit ci ci durus bi waatu Touba Amérique Touba Argentine Touba Italie ñooñu it ñi ngi ñi ngi jël ziar bi di ko teg ci loxol jëwriñ sëñ Ibrahima Ngom ak mboolem ñi mu àndal liggéey bi ñëpp sëñ Modou ñi ngi santaat sëriñ bi te yeesalaat sunu jaayanteeg sunu digganteeg sëriñ bi nga xam ne topp nañ ko ci ginnaawam di ko ñaanal mu yàgg fi loo te te barkeb yi macha allah jërëjëf kaddu yu matala yooyu mbokk yi nii la ko Touba Vision nara woyee ànd ak yéen lépp loo xamante ne ruus na fi moo xam ay kaddu la yu fi bàyyeekoo wala njàngum xasida durus la wala yëkkati Touba vision ànd koog yéen comme ni ngeen ñu miinee rek ci bisu xasida yi kon nee suuti ak suñu yeneen élément wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa